بذاك والإخوان الجميع yaakaar naa commission sociale tey dem na ci barab yu nekk jot na lu jëm ci néew ju doole yi ba tàyyi waaye bir na ma ne ku dégg sëñ Mourtada ni muy waxee di xam ne mbég na mbég moo xam ne nii ba mu yoree commission sociale ba tey gëm naa ne bégu ko ndax fi yëf yi bàyyeekoo la ay ndaw ay tuutànk ñoo dajale li ñu yor mu néew mu bëri bàyyiwuñ ceeb bàyyiwuñ suukar bàyyiwuñ tàndarma bàyyiwuñ dàll ba ci ay takkaay yi lii c'est la générosité fan laa me fii ci kër Badiane May ci njiital soxna maam Anta Mbakke mi nga xam ne dundam yëpp yaakaar naa ne daf ko jagleel ndaw ñi dundam yëpp daf ko jagleel éducation mën naa wax ne dundam yëpp sociale la. tey ñoo école groupe scolaire Kër Badiane May ci njiital euh, madame la directrice soxna maam Anta Mbakke euh, yàlla dogal Touba ca kanam ñëwoon fi ca jamono yële. soxna maam Anta Mbàkke lancé woon benn solidarité ci wàllu social xiirtal ci xale yi ndax xale yi dañ leen di jàngal waaye dañ leen di yarit ci wàllu solidarité ak ci wàllu dimbalante bu màggal jotee dañuy jàng ay kaamil ci xeet yu baree baree baree bëri te it nit ki école du milieu la war a nekk nit ki fa muy fa fa école ba muy jàng rek la fa xew lépp da caa war a participer kon euh, école mooy image yu àddina mooy image yu li nga xam ne fala la nit kiy dund mooy milieu bi muy dund looloo tax sax na Maam Anta lancé woon appel xale yi nekk école Kër Badiane May pour ñu participer ci wàllu social ci Touba ca kanam euh, ba mu ko lancé war naa mat une semaine waaye macha allah xale yi def nañ la lu kawe suñ njort ndax lin fi indi xam naa dinañ dana am luñ ci lim sax ci wàllu ceeb wàllu sucre wàllu tàndarma wàllu saabu wàllu yére ba ci bijoux sax ay bijoux sax gis naa ko ci nga xam ne ñoom euh, xeebunu dara lépp lu mën a indi nañ ko. objectif bi ndax ñu def ko mooy bëgg a jàngal xale yi solidarité jàngal leen ne lépp loo xamante ne dañ dañoo nekk ci tib dëkk dëkk booba di yëngatu ci lu baax dañ leen ko war a teel a jàngal ba mu suuxat ko ci ñoom ba buñ màggee loolu sax dàq am am xolub mën a dimbali koo xam ne dañ koo tane <coughs> yow ñu ngi lay sant bu baax sëñ Mourtala Touba ca kanam saa su ne day ñëw ci école bi di fi def lim fi war a def école bi ci daara ji def na fi ay basang école bi vraiment Touba ca kanam mi ngi koy dimbali nag mi ngi koy dimbali lépp loo xamante ne luy génnee ca Touba la jëm ci daara yi waaye mu jëm ci école yi kër Badia ci gis wàllam sëñ ñu ngi lay sant ba di la gërëm nga xam ne lii asaka lu tuuti la par rapport ak li ñu yéene am mbégte lool ci teewaay bi ci ci école bi nga xam ne nii mooy école soxna May te soxna maam Anta mi nekk ci bopp bi mu doon koo xam ne nii ku yàgg am pasif ci liggéeyal Serigne Touba la ku yàgg am pasif ci liggéeyal lislaam ndax lislaam mooy Serigne bi rek waaye rawatina Touba ci kanam waaye rawatina commission sociale yaakaar naa ba muy gis vidéo sociale ba di ci engage wu du jamono yu yëpp euh, ca boobaak léegi fu ñu mos a woote rek euh, bu dee lu ñuy wax wax na ca bu dee lu ñuy dox dox na ca bu dee lu ñuy jëf tamit yëkkati na alalam def ko ci lii moom day ñëw di firndeel rek li nga xam ne jotoon na caa nekk naka jekk yaakaar naa bi ñu fi gëjee yàggul ci conférence bi ngeen doon def ci weeru mois de février bi ci école bi mu doon chaise boo xam ne chaise sociale lay doon wut ak kees goo xam ne dañ ko fee teg ngir élèves yi di ci barkeelu ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk diggante bi yàggagut yaakaar naa bu matee ñaari weer la cay topp lu bari ngeen mën cee def def ju def ju rëy nii kon day wane ne yitte rek moo moo takk kon yitte ngeen ci def kon nag soxna si ñu ngi lay sant bu baax ci turu Touba ci kanam di la sant ci turu commission sociale mu mel ne nag naka jekk liñ ay góor yuy jàngale moo ëppoon ci li ñuy gis soxna yoo xam ne dañuy jàngale waaye nag loolu mooy cosaanul yoon wi ndax soxna jaaratullahi dégg ngeen ci histoire ñu wax ne ba muy xamal sëriñ bi di ko wax ne ko xiyaamu lay dax bu saalihin loolu yàgg na lool euh, gis ngeen tamit euh, la xewoon ca ba nga xamee ne ña ngi koy yóbbu ca kër ga nga xam ne mu fa war a liggéeyal suñu borom te mu naaloon pas-pasam boobee wax ne euh, dafa dafa jàng ci alxuraan gis ne suñu borom dafa wax ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa waaye am na pas-pas ak yitte joo xam ne nii bu fekkoon ne ab yonante mën naa nekk ba léegi kon moom dana fi indi ab yonante waaye suñu borom lam ko fayee mooy muhammadu rasulullahi waaye abdullahi wa xaatimu rasulihi loolu nag soxna si ca ngeen teg seen tànk njabootu Sëriñ Tuubaa gi jiitu woon yëpp ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ba léegi ñoo ngi ci ci yoon woowu te jigéen moom musta des ginnaaw mukk ci lislaam Seydina Seydatuna Aysa la yonente bi joxoñoon ne jël leen seen genn wàllu diine ci soxna si Seydatuna Xadija gis ngeen nam taxawoon ci lislaam ak ñeneen ak ñeneen ba ci suñu yoonu murid wi ñoom soxna Musli ñoom soxna Maymuna ñoom soxna Fadja ñoom soxna Asugaawaan ñoom soxna Sooda ak ak ñeneen ñu bëree bëri ba ci suñu jamono yi soxna maam Anta mi soxna maam Mbare mu suñu soxna bu ak soxna soxna Maymuna mu suñu Abdulaat ak ñeneen soxna yu xëy na boo duggee ci lim bi mën ngaa bañ a matal waaye ba léegi soxna yi ñi ngi def rôle ba nga xam ni moom lañ daan def naka jekk ci lislaam waaye awale ko ci yoonu Cheikh na Cheikh Ahmadul Khadim mi te way jur wu jigéen wala jigéen ci boppam mooy école bi nga xam ne moo njëkk bu yëwéenee rek lépp mën naa yëwéen kon nag soxna si ñu ngi lay sant ci lii nga fi def ci Touba bu la sooboon mën nga koo def ay immeuble bu yoo xam ne danga koy loué ñu am lu ciy jugee nga di ko jariñoo bu la neexoon tey mën nga koo def ay boutique yooyu yëpp lu ci dagan la yu mën a def la mm-hmm. waaye da koo jël def ko muy boo xam ne nii dañ fiy defar nit te bu ñu defaree dëkk yi ba mu rafet te defarul nit ñi tamit nit ñi nit ñi ñoo yàqaat dëkk bi kon ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal di ñaan jëf jii nga jëf te contribuer ci projet de société bi nga xam ne sëñ Touba moo ko naaloon muy Matlaboul Fawzayni moo tax nga jëf ko yàlla nga ci def ko ngërëmul sëriñ bi ak tawfeexam lii day firndeel ne taxaw néew ju doole yi jarul ay at ku ñëw ci barab bii di kër Badiane May nag xam ne ñii waajal nañ leen ndax ñi leen waajal dañ leen waajal ba noppi kon jàpp naa ne lii de ndaw ñii tey ñu ngi jàngal mag ñi nga xam ne ñu ngi denc lu ne gàññ te war cee jukki as ñëw dimbali néew ju doole yi sëriñ tubaa c'est le plus sociale de la planète yaakaar naa ne kon képp kuy wuyoo sëriñ Touba lu mel nii bu ñu ko gisee ci warule jaaxal kenn yaakaar naa ne xale yi jàngale te nañu mag ñi li ñu wax naan xel moom puso bu réer la mag dina ko for xale dina ko for waaye xale yi toll ci jàng xalaat seen bërëbu jàngkaay ñu sosol leen fa benn kees ñoo ne kees gi dañ ko tuddee kees sociale Touba ca kanam xale buy ñëw bàyyi xel ne ah lañ lay jox ci goûter war nga cee comp ndax am na sa moromu xale boo xam ne mu ngi ci condition yoo xam ne mënul jàng ni ngay jàngee munul solo ni ngay solo mënul lekk ni ngay lekkee kon xale yi gàcce ngalaama waaye yéen waa kër Badiane May yéen encadreur yi soxna Mamanta commission sociale daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waa kër Badiane May ñoo yëkkati lii te di ko xeeb di ko jàppale waa groupe social Touba sa kanam te yàlla nay gën a yokk. kon Touba sa kanam. Touba sa kanam sa kanam rek kër Badiane May sa kanam. بساك والإخوان الجميع سعادة دارين أقل يا سميع